bismillah coowal suuf day ah xaw ma kañ lay jeex ci réew mi lé enquête yéene kaa ne coowal suuf loolu ah ca diwaanu Touba ah saa yi bu ñu xëyee day muy gën di yokk ah looloo tax na ba xalif généralu Mouride day sëriñ Mountakha Mbacké nee na na nag ndaxte coowal suuf loolee daal saa yi bu ñu xëyee muy gën di bëri na ca bërëbu tedd boobee di Touba lii daal tax na ba sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ci boppam defar na ab commission day de recensement ngir wàllum di ko waa yooyee waaw ngir nag suuf si nga xam ni kon nañu ko jël di ko caxat-caxatee noonee daal di ne nag na dakk de sëriñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké porte parole ba waaw ci la séene kaay Ndiaye nee na xanaa xamoo leen ne coowal Palestine gële ak Israël mbirum suuf ci boppam kon moom moo ko waral laa wax lii nag dafa war a nag te kat daa am borom titre foncier la de waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké yamu ca ndaxte na leen ne leen am na ci ay jëf yoo xam ne kon ñu ngi koy def ci dund bi tëdd gi la daa war a dak football bi nga xam ne kon moom la yenn gone nekkee ci biir Touba gi te mujj tëdd na dañ Serigne Bassirou Abdou Khadre géejawaay day waaw Macky Sall daal dina koy caxa-caxatee laa la wax def na ko kon ay morcellement dama ne la Macky Sall jël na géej jël bakkanam bakkanam ba xootu gerte Macky mais Guédiawaye en danger mar di tali waaw te Macky Sall kat li jaaxal nit ñi mooy ay mbiram saful yàpp saful jën laa la wax Macky Sall daal bu taxawee tey ne wàllum environnement nañ leen ci jubloog loolee jël Guédiawaye tey lem suuf sa ndaxte Macky Sall lu tolloog cent cinquante virgule cinquante hectares la ilaha illallah moom la déclassé de nee na pour wàllum équipement yu fa gouvernement bi tabax waaw wàllum logement ak yeneen i infrastructure eh way Samba yéene kaa gi ne waaye Macky Sall ne vingt-huit hectares yooyee ñuy jaxat-jaxatee kon ca bande filao bu Géejawaay boobee mardi parce que nag gis nga bërëb boobee nga xam ne dama faa sampoon filao yi day ngir dëkkoon suuf sa géej gi ci boppam kon du mën a ñëw ci biir askan wi la léegi nag géej ga dana mujj ba parce bërëb ba la ñu jaglee léegi wàllum béton tabax ba lay raam na ca ñag wala jëm te fa amee kër du fa gaaw a génn de parce géej ca boppam kon ma ngay avancé avancement bu doy waar songu kon nit dafa taxaw ne de du jox benn pepp suuf kii di Adama Faye li mer loo kon rek ku Marème Faye bi lée déggal déggal déggal te jamono jooju ñuy wax suuf waaw enquête yéen a kaay nee na élection locale 2022 Amadou Ba day taabal jëmbaa tool ya rek taabal jëmbaa tool ya gis nga Amadou Ba waaw ngir bañ bukki bi nga xam ne moom moo maatoon Alaaji Maalik Gàkku day dal ko bukki ba maat ko waaw dana xeex ci biir APR googe majorité ba wala demal boppam waaw kay parce que ne gis nga keroog ba Alaaji Maalik Gàkku mi le bàyyee Alioune Sall nekk maire Alioune Sall ca la di taxaw na defaru defar baasam ci wàllum politique daal di commencé dajale ay victoire la dal nag Alaaji Maalik Gàkku moomee Ba bu bañee loolee dal ko waaw dana taxaw yéene kaay ne waaye est-ce que xam nga ne Macky Sall dana jàkkaarloo ak rebelle yi nga xam ne ñoo nekk ci biir parti am a ah, bu dee am na ñenn ñoo xam ne dañuy mbel mbeli nii di wax rek di wax ci kaw naan waaw dañuy ne candidat di fippu ah. autorité bi lée nee nañu pat di waajal élection yi nice good fine laa la wax Macky kay nekk nii këram gi doy na waar le quotidien yée ne kaa ne gis nga Macky Sall këram waaw Aminata Touré day mujj naa juboo ak Macky Sall di dama ne la Macky Sall dalal na ko ci Mermoz gi ci këram Macky Sall ak Mimi Touré nee nañu waxtaan nañ lu tolloog ñaari waxtu yàlla laa la wax xam nga Mimi Touré daa géddoon rawatina na keroo ba ko Macky Sall ne ko Idrissa Seck ma jambal ne laaj wi kay mooy Mimi yéene taxawee looloo jar a laaj su bi day nam nar a taxawee ci élection locale yi lée waaw gaañaa nga ca raay ba de nu ñu def ba defar benn liste rek Sénégal gi yëpp waaw parti démocratique sénégalais day taxaw na ci temm de taxaw na ci temm nag mais gis nga ca département bu Mbàkke ba le lu tolloo fukki parti ak ñaar bokk na ca bokk gis sa bopp taxawu Sénégal grand parti ak yeneen parti day loolee moom demee na côté d'accord nañ ca yàgg na ca département bu Bakel tamit day commune bu Diawara waaw opposition ba nee nañu loolee d'accord nañ ca ak moo fa seenee nekk seen tête de liste Direct News yorin nga ca maire bu Yoff day Modou Gueye waaw daal dina lu mel ni xamee Abdoulaye Diouf Sarr ardi tali ci maire bu Yoff dara baaxu ci laa wax ardi tali way parce que fal nañ ko mu nekk maire waaye dafay def lu deful Modou Gueye ne problème yoof la te tànk Abdoulaye Diouf Sarr deful ay jéego day ci kawam rek laa jëm moo duggee ci direct news ne am na ay jege ñaale président yoo xam ne ko ñu ngi may menacé ngir ma ba mais ma lank laa la wax bul bàyyi de moo duggee nee na Abdoulaye Diouf dara la deful yoof laa la wax le soleil yéene kaa ne Macky Sall day ci fukki at yi la waaw daal dinay soppi ba gànnaaru réew mi laa la wax ndar ak maatam li ko wër maa la ko wax ay Podor enquête yéene kaa ne Podor googee élection locale yi du yomb Aïssata Sall Racine Sy ak Aminata Assel Sall ndaw ko coobu miti est-ce que Aïssata mënu dat wi nga xam ne kon moom la ñuy bind temps yëpp ñu ngi koy wax ci internet bi waaw naan binduwaat wi ci liste électorale yi du 15 juin au 15 juillet loolee amul fake news la ministère ba génneekul dat wa de Le Quotidien yéene kaa ne daw bi nga xam ne la booy jinne daw na ko dee ca kaso ba waaw quatrième complice daal dinañ koy jàpp laa la wax réew mi Quotidien ne waaye gardien yi nga xam ne kon ñoo doon garder kaso ba day setal nañ leen na leen de libéral libération yéene kay ne booy jinne ko ca kaso ba yóbbu ko ca procureur la wax yéene kaa yoo xam ne jaarul yoon ay salle de jeu la waaw ak ay machines yoo xam ne ca xaalis rek lay yu bare bari nag waa dig day war nañu ndomba business bi nga xam ne moom la lin xiwee doon def ca ngafaru gae lañ ko jàppee waa ji chinois la ah ndekete semaine bu ne daan na am lu tolloo fukk ak juróom ci ay millions allahu akbar machine am yooyee ma ngi ko installé woon ca Tivaouane Peulh gae Thiès tubaab Ngalaaw Kaolack Kër Ayib Kaarañ Sali ak yeneen i gox lu ci toloo fukk ñaar ci ay doomu aadama kon di ay suspect waa digg ak nañ leen loxo te nag xam nga njortu gi la laa wàllum blanchiment seetal xaalis rek boo xam ni setul laaste tojaange yi nga xam ni kon moom la ñu nimmi ko nag ci réseaux sociaux yi la nguur gi day mi ngi préparé nag arsenal de guerre évidence yéene kaay ne taxaw na de ngir loolee kon daal di dakk critique yéene kaay ne accident bi fi amoon day ba ñetti journaliste leeral yi faatu waaw fans club di xaritu leeral yooyee kër daam jënga waaw jox nañu njabootu ku loru ku ne juróom-ñaari million ñi nga xam ne dañ cee jëlee itam ay gaañu-gaañu ku ne jox nañ la ñetti million coow la am kon ca diwaanu Casamance kale Sud Quotidien nee na kuréel gi nga xam ne moo njaboote fippuy di rebelli MFDC waaw nee nañu weer ngaat naa yi la ñu bëgg cesser le gi sax nag moom la ñuy tuumal ne négociation yi lée nguur gee bloqué <laughs> waaye coowal Casamance googee dee ak lu mu bari bari bari bari bari bari bari bari bari Sénégal gi yëpp jàmm la ñuy ñaan parce que pétrole ba tam ma nga Casamance looloo tax ba suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf ñu xam ne si la ñu bokk nag kon faw ñu dëggal seen bopp démb la ñu ko xamle si euh, ay kàddu yu ñu si yëkkati gannaaw ba ñu tënkoo ci ab mouvement Aminata Diallo moom mooy njiit la ñu teewlu ay kàddu ma xala sant ñu gis ñun place yi ñu war a teg kenn du ñu fa teg bi yoon nag comme d'habitude rek ñu anticiper pour xamal ni que ni dëgmal nañ liggéey bi yàgg na sax mais fi mu toll nii dañ ciy gën a sóobu parce que li président falu ñun loolu moom moo ñu ñor. te niñ koy defee mooy ku si nekk ñi fi ñëw tey ku si nekk responsable nga ci sa baas te tàmbali nga liggéey bi yàgg na mais tamit bu fekkante ne ñun dañuy ànd ak président di liggéey ba si cappaandaw gi ñu sepp ñu teg ñu fee donc loolu mooy lu nga xam ne dañ koo ñëw pour xeex ko fexe jële ko fi ñu àddu jamono ci premier adjoint au maire bu Diamniadio fësal na ne kon dana samp nëndëm ngir nekk maire foofee euh, sa Diamniadio mu daal di profité si ab final bi nga xam ne moom la ñu ko woon ngir nag yëkkati ay kaddu ko ak dal si coow la nga xam ne moo am sa Dougar Aliou Sané ay kaddoom ñu teewlu ko. élection ñi fi njëkk a en 2002 man maa ne woon tëdd liste maa ko gagné askan bi ñu ngi may déglu askan bi bëgg nañ ma fu ma jublu dinañ fa jublu léegi nag dafa ñor. mënumaa nekk premier adjoint au maire may ges ci kanam rek laa jëm. bu waree am ku ñuy plaidel askan bi la ñuy plaidel wante bu problème taxawee te xamoo li ci biir da nga am ak mandute ba nga xamante ni da ngay prôné solution yoo xamante ni solution yu apaisé la solution yoo xamante ni wàll bii dina si gis boppam wàllu bii gis si boppam mais ñaan président mu ñaax ay service am pour que loolu mën a nekk parce que ñun aussi. bëgg nañu déggoo ak suñuy population parce que fi ñu jëm dañoo soxla suñuy population dégg suñu ñu wutali sa Tivaouane Peulh ñàgg bokk na ci ndaw yi nga xam ne ñoo njëkk samp seen dënd wala ñi gën féete ndaw te ñu samp seen dënn ci élection locale yi ñu dëgmal Mamadou Kane ndaw la ci atam dëkk foofee sa ñàgg bëgg moo di jële fa Papis Diop ma nga xam ne moom moo fa nekk ndax nag nee na bés bu ñu ko tegee ci jal bi manees nañu wax ne dana delloowaat euh, Lac Rose na mu meloon ndax nag loolee rek si lañu ñu mën a sukkandiku ngir gox ba daal di euh, maanaam suqaliku Mamadou kan lii moo di ay kàddoom commune bi war na dépasser foofu ñu gis na lii na doxul te ki nga xamante ne moom la ñu jox commune bi ni ko waroon a liggéeyee liggéeyu ko noonu ñun nag ñooy ay ndaw ñu am vision bu sori am fu ñu bëgg yóbbu ñaag am fi nga xamante ne tey Lac boo duggee xar kanam gi boo ko duggee da ngay kontaan mais loolu lépp gisuñu ko. waaw tey bu yàlla defee ba nga ne ma nekk euh, maire Tivaouane Peulh Niague mooy delloo Lac Rose fi nga xamante ne moom la nekkoon parce que am na ay jafe yu bari éducation bi doxul sante bi doxul te loolu lépp ñu ñu dëkk si dëkk bi nag yaakaar naa ne ñun ñoo mën a defar loolu ab jàmbur du jóge faneen duñu ko defaral kon loolu moom moo tax ñu jóg ànd boolu ñu ñëpp ak jeunesse bi nga xam ne moom la ñu àndal mooy MZ mouvement de la jeunesse espoir de demain man ma nekk président bi loolu moo nekk suñu ambition mooy defar ñàgg sa kanam ba képp koo xamante ne tey dugg nga ñàgg di nga xam ne ñàgg am na ay jeunes yu pare pour defar ko ayca <laughs> bokk ci xale yi mënees wax ne candidat yi gën a ndaw euh, sa euh, si local yi ñu dëgg ma samp na dëndëm El Hadj maa ngi laa nuyu. le député du peuple gis nañ ko nekk sa jam ñaajo la mu wax samp na ndëndëm mooy premier adjoint bi euh, Mamadou Kane mii sa ñàgg moom mi samp na ndëndëm xale la candidature yi ñu commencé gis mu bari lool noo ko jàngatee. sénégalais égal à lui-même rek. Mhm. sénégalais nguur la bëgg. africain nguur la bëgg. Mhm. seen candidat yu bari yi nii. dañu liggéey seeni i population gis nga nit ki. Mm. mun na amal population njëriñ. te du nekk du xëccoo wala mu nekk maire. kenn ku nekk teg nga ay privilèges yu maire yi di am de façon illégale. nga mm. teg ci bët rek jàpp ni ci xëccoo ci élection la ko amee war naa ko mën a am gis nga gis nga politique gi ñu jël yanu di lëre nit ñi ci jamono ji man sax fi nekk nii gis nga maam. man dinaa jéem a dinaa jéem a wax fii suñu rédaction fii ku nekk candidat sa local. Hmm. boo ko bëggee wax fii sa da ngay fay. da ngay fay ah oui foofu foofu ñu jëm foofu. Hmm. candidat yu bari yi ñoom. candidat nga yow liggéeyal pour sa population amala sa askan njëriñ laaj leen kàddu ñu fal la. ñu bëri ñu ay candidat la ñu maam. yàlla xam ne ne sax luñ joxe caution. da ngaa foog élection la yombee. Hmm. caution ay millions foofu ñaata la. fukki millions la ñuy waxagum de. <coughs> fukki am ñoo xam boo leen bett bett fëgg leen tey enveloppe bu diis la de. budul bu ñu yaakaaru dara ci suuf wala lu ñu lijjanti amuñu sax deux millions de ñoo mën a yem de. ah yombewul noonu. foog nga liggéey lu ko jar. foog ngay def ay proximité foog nga liggéey lu toll ci ñaar jàpp ñetti at. Mhm. waaye tëb tëb lay ni cëpp ci géew bi. ñu jox leen ma seen dëkk dama ko bëgg a jiite. mais yow bu ñu ba nga jiitewugul lan nga def. yow dëkkoo fa. doo fay fréquenté doo fa doon dem ngénti amatoo fa ay copains amoo fa ami d'enfance Euh, xam nañu ma nit ñi nit ñi bëgg nañ ma comme par exemple ki nga ki nga teg sànq dama dëkk ca jam ñaajo nee na nee na nit ñi teg nañu ma bët bëgg nañ mais maa ko ëppi fans du loolu affaire bi du loolu man non du loolu nañu respecté nit ñi ci seen ay discours yaa xam est-ce que dëkk jam ñaajo xam na ko ah. Pape Mahanta non non non nañu respecté nit ñi xam nga liggéey xam nga xam nga man Mansour wax liggéey nag wax dëgg yàlla nañu liggéey wax caaxaan baaxul mooy mooy dëgg mm-hmm. caaxaan baaxul yab nit ñi mënul weesu ñu ne élection yi jege si na nga dem xotti sa ñetti jesneer gàddu sa ñaari costume. ànd ak garde corps ànd ak garde du corps. mais am ambition. parce que xam nga lan mooy problème bi. gis nga c'est tellement dangereux tey. bu ñu jëlee collectivité locale yi di ko foowee. Mm-hmm. parce que picc mu jóg mu ne ne man candidat la tamul leer na ne yow. amoo benn moyen bu la mën a may pour nga yoon mairie. loolu ça pose problème. Mm-hmm. te tey xam nga lan moo war a am. Mambey mairie nekkul loo xam ne fu ñu jëm bu ñu fekkee ne li ñuy woote dëgg la ci ñun te ñu bëgg a développé nekkatul loo xam ne dañ fay ñëw pour def ko ab ndab di sëgg di lekk mënatul nekk. mënatul nekk mairie yi lay dëgg mooy mairie yi il faut ñu nekk tey jii nii lu luñ ko tuddee mu nekk lan mu di ñi nga xam ne dañuy liggéeyal pour askan wi. Mm-hmm. bu ko defee ñu mën a tendre vers l'émergence. mooy lan mairie yi mënatuñu di leen dundee mais au contraire mairie yi dañoo war a am solo am taxawaay guy may askan wi ñu mun a soppi seen nekk. taabalu mm. caaf sax mosoo koo daaj. waaw mais yow amoo sax oto oto bu baax boo xam ne mën mais kooku bu faloo maire day dem jël xaalisu mairie ba dundee ko amul ma dem te loolu moo fi am ak mairie yu ma leen déggee sama candidature sa maire ouest fu mu nekk nii yéen a ngi koy remettre ah, xam nañu la non moo yaa ngi fi défendre ah. Ah, xam nañu bu sa am am bu fa yeggoon am na loo yéene pour Tëngéej au moins euh, def nga si benn buntu kër au moins au moins waaw waaw ah Tëngéej laa dëkk fa laa juddoo fa laa màggee ñu euh, euh, waat Yaakaar nee nañu fekkee liggéey yi nga xam ne sumb nañ ko sa Touba dañu ko arrêté Euh, loolu nag mën na andi ay gàllankoor ñoom ci fa ñu jëm looloo sabab nag ñu bëgg ñu dooraat liggéey ba matale ko ñoom waa coalition a euh, euh, Bokk Yaakaar Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf ci ay leeral. Touba nekk ci waajtaayu jongante gox-goxaat yi bu sàgganee ñu suul ko ci Touba. les travaux sont en yi ñu amal ci Touba te taxawal ko mën nañu jural ay jafe-jafe ci joŋante gox-goxaat yi ñu dëgmal ndax menum askan wi lay jur. noonu nii mu xayaat ne lu ñu mën a joyanti la ci kaw ñu doon wenn say. donc Touba li xam nañu ko xam nañu xam nañu suñuy faay. ñu ngi jéem seet nan la ñuy def léegi pour jëm koo jubbanti bëgg naa la ñu bokk ndey bokk bàyyi bokk liggéey. ànd ak dal yar ak teggina topp ci joxo ñëpp parti bi. nous allons vers des élections locales. Macky moo la gën a xam li xew Touba. kan mooy ne candidat Macky Sall xam na ko bu yàgg. il a ses renseignements généraux xam na li fi xam li fi xew xam na nañ la war a jiital. je suis candidat. par rapport à la volonté du chef de di am sàqum wote war a joxe njël jamono yooyu le conseil départemental bi tere nelaw ñu bari ci woy politique yi. ñu wutali sa euh, yëmbal noor ab kuréel la ñu fa taxawal di ab cadre bu nga xam ne nii fa la ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne moo am sa yëmbal noor euh, kuréel googee nag nee nañu euh, bës bu ñu sa demee loolee nag jafe-jafe yi sa gën a fës ñu war ko waxtaanee bokk na sa ñàkkum kaaraange courant ba ak lampi mbedd yi des na yëngal suuf sa ñuy caxat-caxatee loole yëpp nam nañu ko fa waxtaanee Mbaye Mbeng coordonnateur bi la ñuy teewlu ay kàddoom wax Mamadou Fafana mel ni ci Sénégal mel ni ci réew mi gagne Yumbo Nord, gagne le de Pékin. Mais pourquoi quand les autorités du pays, nos gouvernants là, ne nous conseillent pas une personne ne vraiment y dis-moi c'est le maire. Si on a un maire, c'est une honte pour nous. Mais ce n'était pas la faute de parce que le maire a cessé seulement les populations de Yumbo ne seraient pas possibles de l'arrêter. Mais parce qu'il a été choisi par ça. Il nous a imposé ça. Mais maintenant, on doit taper sur la table. Maire, il nekk ëllëg day xam ne ñun duñ ko tane dimbali fekk loxol borom nous ne voulons plus un maire comme Daouda Ndiaye la commune de Yeumbeul Nord muy góor muy jigéen ñu ñëw ànd ak ñun ci cadre bi ñu dénoncé li fi nekk xool maire yi ñëw suba kan lañ fi tànn koo xam ne duñ ko tànn muy jëndi ay kër jëndi ay oto ay ay jabar di def lu ko neex ci kër bi te alors ko kooku démb barki démb xam nañ xam nañ ne ni mu fi nekk ñu àddu euh, jëmale ci euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi nga xam ne jamono ji mënees nañu wax ne ak local yi ñu dëgmal ay jafe la ñu nemmeeku seen biir euh, ndax nag saa su gis ku fàqee sa langue ba xaw seetlu ndax day doro ci ab ruq gu bunt lii waral laaj gi moo di ba Macky Sall xam leen ni élection yi weeru janvier 2022 boobu ak léegi nag coalition Macky Sall tàbbi na ci ay yëngu-yëngu ay responsable yu déggaloon seenu njiit fàqeekoo ci lang gi fësal seenu bëgg-bëgg taxawal seeni candidature donte seen njiit yëkkati na kàddu nii nañu nag mooma mu joxe ci ab xalaatam mel na ni ay responsable coalition bi déggeew ko noonu bee ci gën a jur mbetteel moo di bataaxal gi nga xam ne ni ab gorom àqan di aadama fay bind na ko jëmale ko ci ab njiitam moo mel ni kër gii di APR am na ñoo xam ne ne ngi yëglu fippu ndax tamit kilifa coalition bi yéen gi nga xam ne ne moom la ci bàgg ñi nga xam ne ñoo di ay ndawam moo diis lool ba looloo tax na sax ñu bëri ñoo ci ciy ñurumtu ñenn ñi ñuy wane ci seen bopp ab coalition nag bu demee ba yëngu-yëngu am bi ci biir lang gi faw nag mu am penco lii ci élection locale yi mu wute lool ak élection présidentielle yi walla nekk bëgg nga am cëslaay ci sa gox ngir nga gën a dëgëral sa taxawaay mu doon ab yokkute. El Hadj dafa mel ni liste parallèle mënta ñàkk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar coow ni bari na si loolu bi si mujj moo coowal Adama Faye gi. ah Adama fay sa xëy na <laughs> dañ koo dañ koo singale moom moo fës la. dañ koo singale mm. mais li mu def sañ na ko de. Mm-hmm. te loolu mooy dëgg gis nga démocratie. faaw kenn ku nekk joxe xalaatam xëccub local ku ne fa nga natt sa bopp ba xam ne am nga fa poids da nga fay xëccu. Mhm. mais li ma waxoon démb laay waxaat de liste parallèle yu bëri góob ma ko. ah jël rek boo xam ne mu ngi ci. xam nga coow bi lan la euh, dafa am ay parti politique yu bëri yu bokk ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar. ay parti yu bëri la. Mhm. te coalition boobu en même temps dañu am ay représentant ci biir opposition bi. te fi ne ñuy wax ay élection locale est ce que xam nga élection locale yi 23 juin bi ñu ko jàpp wóorul. décret bi tax ñu amal ko génnagul motuwaay yi génnagul euh, binduwaatuñu bindooguñu ci liste yi ba léegi nii. xam kon ba léegi nii sax date boobu wóoragul. caution bi kenn et déjà date bi fi mu tollugum muy datu la élection locale yi dàq na automatiquement élection législative. Mm-hmm. gis nga fi mu nekk nii fii nekku nekkuñu ba commencé def campagne. du ma jàpp ne élection yi dafay am. Mhm. loolu benn la ñaareel bi ci des. mënuma toog di noppi mukk ni Sénégal démocratie mu ngi fii avancé fii ak du ñu respecté calendrier électoral bi illégalité bi nekkoon wala illégitimité bi nekkoon ci maire yi. Mhm. bu duggee ci biir assemblée nationale. comme ni mu nekk tey ci au conseil des collectivité territoriale mais dinañu laaj nag suñu kilifa yi est-ce que jàpp nañ ni am na ñuy xalaatandoo ak ñoom am réew institution la. am réew ay constitu constitution moo ko ngànk mhm. ak ay institution yu fa nekk du marché Sandaga ba fu la neex teg sa taabal mais tey ni ñu gérer suñu suñu suñu suñu datu élection yi foofu na mhm. ni ñu ni ñu gérer suñu institution yi ak nit nit ña fay nekk avantage yi ñu am da ngay am oto da ngay am carburant da ngay am logement ñu ne la telle date ba telle date la sa mandat di jeex ñu bàyyiwaat la un an deux ans mhm. nga continuer nekk fa ci réew boo xam ne tey boo taxawoon ŋàññi institution doo fanaan say tànk du laal suuf boo ŋàññi woon suñu constitution yi say tànk du laal suuf mais kon nañu respecté sénégal yi nga xam ni ñooy nation bi tax ñuy wax république di wax démocratie di wax ay institution ki constitution ñi seen mandat yi jeex nañu dem mairie jeexal nañu bu yàgg mat na deux ans au conseil des collectivités territoriales jeexal nañu seen mandat député yi seen mandat xam mënoo fexe ba élection législative nekk mois de juillet deux mille deux mille mais léegi ñu ñuy tënk ñu rek ci ay list parallèle parallèle parallèle yi du réalité ci ñoom wax naa ko démb euh, Macky la amul faiblesse ci kanamu ñu mu àndal. faiblesse bu toll ni ngay naan ci mbalkam ba noppi ñu ko fii li mu fi wax du ma ko def. leneen lay def leneen lay def. parti yi ndaw yi nga xam ñoo àndandoo ak moom nag. Mhm. man ñooñu laa yërëm ak partie yu mag yi nangu ñu tas leen. Mhm. loolu li nga wax lu am solo la. Euh, sëf la la ko bënd nga ca biir ñu àddu jëmale ci ñàkkum euh, xëy mi ci ndaw yi bu fekkee bëgg nañ euh, ut ak saafara faw ñu teg ay pexe yu dëgër waaye it secteur privé bi ñu dooleel leen ba ñu dynamique loole moo di gis-gis nu Mouhamadou Fallou Sène moom mooy président global tour dafa gis ne bëri na agence yi nga xam ne nguur gi taxawal na ko waaye nag la ca gën moo di ñi nga xam ne amuñu ay këyit ñu daal di leen di gunge ngir ñu mën am am xëy ñu teewlay kàddoom moom Mouhamadou Fallou Sène ak Pape Manta Mboup ñu mën a taxawu ndaw yi lu ci mel ni ay FONGIP ay FONSIS ay ANPEJ ay PRODAC ay PAPEJ ba ci DER waaye li ñu nemeeku mooy kumba am ndey kumba amul ndey mooy tey ci ku ci sa loxo guddul doo jot ci financement parce que dafa am benn absence d'égale chance d'accès à l'emploi l'absence d'égale chance d'accès au financement donc loolu noonu bu ñu ko gisee euh, dégg naa fan yële ci gën a am ñu ne est-ce que ces jeunes sont dans ignorent l'existence de ces structures alors ndaw yooyu noonu tey jii bu ñu génnee Sénégal dem ci uti yeneen réew c'est parce que euh, euh, Espagne moo amatul ci environnement professionnel. nous donc faw ñu mën a toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu mën a déggoo ngir ñu mën fee toog ndaxte ñun ñoo mën a ñëw defar suñu réew donc loolu dafa bokk ci objectif yi nga xamante tey si nii moo ñu tax a jug tout ce qui se fait pour les jeunes sans les jeunes c'est contre les jeunes. ñu wutali sa kayaar jàngoro ji nga xam ne gis nañu ko fa jàngoro ju yees kenn xamul lu koy wàlle waaye it kenn xam mu jóge bu fekkee ne waa kër ñu ngay xam ne ne kon mbir yi euh, am nañ si ak saafara mu mel ni kon nappkat yi si boppam weddi nañu ko ba mu set kenn si ñoom moo du mbay ñu teewlu ko Xalioune Badara Sonko. situation bi nga xamante ni moom am kayaar si feebar bi nga xamante moo fi am est maîtrisé ce qui est archi faux parce que jusqu'à présent ñuy wax feebar ba tey ndax li tax mooy ñi nga xamante ñoom la dal sax dèjà bàyyi na si ñoom ay sëkkal parce que bu fekkee yaa dogal na mu dal nit euh, surtout loo nga xamante ni daf di biir buy daw ak wàccu Euh, faiblesse bi nga xamante moom lay bàyyi faiblesse la boo xamante bu doy waar la kon bu fekkee ne leen maîtriser nañ ko ñun bokkul ak ñun li ñuy dund ñun ñi nga xamante ne dañoo am ay kër am ay njaboot njaboot yooyu mu laal leen njaboot yooyu bi mu leen laalee ba pare mu am loo xamante ne wàcc na ci ñoom jusqu'à présent ñun ñu ngi jënd ay ordonnance yoo nga xamante ñoom ba léegi ñu ngi ak seen faiblesse kon bu fekkee taxaw na ni maîtriser nañ situation bi loolu tamit lu doy waar lay doon lu ñuy bett lay doon ñun kayaat bokkul ak ñun dund vraiment seen information bi mu ci boobu noonu fi ko jëlee jàpp naan c'est erroné et wàllu wér-gu-yaram dañuy desandi jàngoroy coronavirus gi ni ma leen ko waxee ci ndorteel li askan wi dafa mel ni dañoo jàpp ni jàngoro ji jeex na waaye nag jàngoro ji bu ngay wéy di dicté ay luwaawam ndax rek ni ki dem ba wàññi nañu ñaar ñu sa ñàkk seen ak bakken bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi te junni yu tegal téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo sa faatu kaa communautaire yi fii ci diwaanu ndakaaru mu ngay gën di law ñu ànd seet taxaw seetlu bu Fatou Laye Mbaye Diop ñenn ci sénégalais yi mel nii rek ñoom dañuy nelaw ba a foog na nag lii di covid 19 sonal tuñu et moo ne de ma ngay wéyandi di faat ay nit ba léegi nag bés bu ne rek dinañ daal di compter ku faatu même bu fekkee ne sax benn la doon te it Covid 19 bi ba léegi mi ngi daal di wéyandi di def ay victim ndax ba mu dooree ba léegi fii ci Sénégal lu ñu mën a xayma ci ñu faatu toll na ci junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett te it na mu doon wàllaatee lay wàllaatee ba léegi te moo ne de ñu ngi daal di fekkee ci jamono yi nga xam ne ab relâchement moo daal di am ci jamono yi nga xam ne cas communautaire yi ba léegi ñu ngi koy recensé bés bu ne ay cas communautaire yoo xam ne ñu ngi koy gën a gis sax fi ci Ndakaaru Ndakaaru point du jour bu tay bi sax ñi ngi koy wane ndax nag boo xoolee fukk ak juróom benn cas communautaire ci Dakar lañ leen recensé Dakar mi nga xam ne nag ñi fiy daje bari nañu loolu dund gi nekkaat na mu nekkaatee woon euh, ci place u éviter leen ay rassemblement léegi nañu naan ni ngeen daal di vigilant euh, tayit ci dëkk goo xam ne lu loolu ñeenti téeméeri ju ne xaaj ci ay nit donc ñoo ci jot a vacciné wu na Fofana ndax jotul ñu soobaat ci xeexu jàngoroy coronavirus gi ndax euh, naam communication bi xaw naam ak sook euh, soppeeku waaye nag euh, mi ngi ba léegi fii de. xam nga doxalinu ak ŋàbbinu cuune gi ñu ŋàbbee yëfi mhm. moo ñuy indi lii nii lépp. parce que tubaab danaan quand on a la connaissance et la maîtrise. Mhm. de ce qu'on fait y a point de tâtonnement. mais ñun ñàkk xam fa ñu jëm ak lañu ñu nañuy ñuy ak feebar bi. Mhm. moo ñuy indil problème mi. est-ce que xam feebar bi mi ngi ñëwaat mi nit ñi rendre ñu ci compte. non non parce que cas yi Fatlaye Mbaye mi ngi koy souligner léegi kaa yi boo xoolee mi ngi yokkaat nànk-nànk kaa communautaire yi dafa gën a yokk. te loolu yëpp bàyyiwuñ ci xel. parce que bu fekkee ne tey ministère bi nga xam ne moo gàlloo lu jëm ci wàllum xeex bi nii ab ŋàmbin mi ŋàbbinu yaama neex la ŋàbbinu politique la ñu am xam-xam gedd nañ presque bàyyi nañ gis nga docteur so ña ngay wax ma ngay dem yoon professeur Seydi démissionné na fële tout le temps ay malaise yoo xam te ni moo am biir ministère de la santé loolu ça pose problème te mënut indi lu dul lii nii. Mhm. parce que bu fekkee da nga jël ministère jox ko koo xam ne amul compétence xamu ci dara. yëf yi mënul def lu dul indi malaise yu mel yi nii nga xam ne moom la ñuy dund ay démission jël ay directeur jële fii jël ñi loolu ça pose problème te mhm. tey jii nii gis nga koy fooye mais ñu ngi dugg ci guuta goo xam te ne ni xamuñu sax fa lañ jëm. loolu am na euh, El Hadj maa ngi gis si commentaire seen TV l'officiel ñuy wax ne kon euh, corona amu fi ay dóor la est-ce que euh, ñuy xalaatee lu ñu mel mën na tax jàngoro gën a law. non corona am na. Mhm. dëgg yàlla loolu moom waxi caaxaan la. moi je pense ñu naan corona amul ñoom ñuy dund léegi a xel mu matadi. Mhm. <laughs> corona am na lu am la moom kay moom kay business bi ci nekk. wax metti gi mu metti diis gi mu diis ci kaw ñi seen yoon nekkul ci liy alimenté corona tey bu fekkee corona bi yokkuwaat na ci Sénégal à cause de seen meeting yi seen tournée yi seen dajaloo yi seen mumbaay yi nga xam ni kenn du ci respecte mesures barrières xalaatoo sax di takk ay masque mhm. et revenons ci euh, tukki njiitu réew bu Sénégal bi mu defoon fan yii ngeen ngeen koy woowee nan économique tournée économique nangam économique waaw euh, néew na ku ngeen gis mu takk masque ci rencontre yi néew na ñu sax ay ay ay ay ay ay ay mesures yooyu nga xam ni jëloon nañu ko donc ñoom nañu assumer ñoom itam seen ay responsabilités mhm. mais message bi may jëmale ci Sénégal yi yéen yéenay jënd ceeb te amoo leen salaire yéenay jënd diw mu yokk amoo leen salaire yéen yéenay jéem a am kër te amoo leen suuf loo leen am ñu nangu ko yéen sénégalais yi yéenay jéem jënd móol wala feer te amoo leen ko parce que ku ni niim ku ni ku ni ku ni siiwa am benn pain boo lekk. Mhm. doo xalaat yooyu yëpp. alors yéen dañu fi tëjoon atum lëmm mënoo leen dem mënoo leen a dikk yéen na fi seen i papa gaañu te mënoo leen a dem seen i yaay gaañu te mënoo leen a dem yéen a ñu tëj mënu mënoo leen a tukki yéen a ñàkk seen ay avantages ak seen ay mhm. privilèges yu bëri ndax li ñu leen tëj te ñi leen tëjoon tey la gën a am xolul tëj leen prenez vos responsabilités teel a gàttandu feebar bi balaa moo ñëw ñu leen di tëjaat parce que li ñu mm-hmm. tëj ak li ñu sababal ci ndóol daaw a ren li ñu fi créé ci ay li ñu fi tëj ci ay société li ñu fi créé ci ay richard yu bees ça suffit ndaas mm-hmm. que ne taxaw jàkkaarloo tawat ji bu ñu leen woowee ci ay meeting yu amul solo yoo xam ne ñu respecte mesure barrière lànk leen Mm. bu leen kenn tëjaat parce que ñi capable ñu tëj ñu tëjaat leen. <laughs> te li bu ñu bu ñu tëjaatee nit ñi nit ñi dee ndax xiif. dëgg maam xoolal Covid bi ak léegi. ceeb daa yokk diw dafa yokk ciment yokk fer yokk fëgg jaay yokk nen sax léegi luxe la nen fanweer lay jar. nen kii nee na euh, euh, nan ko nee na mante frais sax léegi dañ ko. mante frais dañ ko yokk léegi juróomi dërëm ñett la waaye ñaar lañ. léegi ñaar la effectivement da dem ki lay jaay ki lay jaay da lay da lay préciser ni la mante frais léegi nekkatul ñetti vingt cinq léegi ñaar vingt cinq la fukki dërëm ngay joxe am ñeenti tàngal menthe fraîche. Mhm. suukar moom amatul njëgu dërëm amatul njëgu ñaar dërëm. Ah si non si ah, eh, moo fee nee na lax si gerte caafi sax dañ ko wàññi léegi. dañ ko wàññi léegi maire bi jaay gerte. non de def non non bi ñu la doon jaayee. vingt cinq mooy jar léegi cent franc. te boo weddee bu ñu noppee génnam demal fii ci ginnaaw télé bi. fii nga jënd nga fi gerte bu cent franc. man ma dem suñu village Kër Songo jënd la fa gerte mbuus vingt cinq mu tolloo ak bu cent franc bi ñuy jaay dàq. c' est de l' injustice boo xam ne. yàlla baax na injustice sociale. bu kenn mënta ma bu ñu fa yeggee nag gis nga bopp kàngum bopp ku mu të. da ngay làmb pour xamul ni nga mel ni mu mel da ngay làmb sama kàng nu sa kàng mel la kàngu keneen mel. parce que ñun ñëpp sonn. mais ñi ci kaw yëguñu sax coono bi. sikki ma làkkandoo. sikki ma làkkandoo yaram ak màggat la foo ca laal day metti. bu ñu àddu jëmale ni mu leen waxee ci ndorteel yi di euh, carte de presse nationale yi nga xam ne euh, tàmbale nañu ko euh, distribuer ni ki démb ba mu nekkoon si teew ak jëwriñ ñu dénk wàllum juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo demoon déposé xam naa sama zaar gi déposé ñu Mamadou xam naa déposé wul ñi fi nekk ni xam naa ñu si bëri déposé guñu fanweer ak juróom-ñaar képp la ñu validé Daouda Mine jot na saa yëkkati ay kàddu ñu teew lu ko. bu ñu ubbee dépôt yi ba tey jii recevoir nañ 166 dossiers. notification yi dañoo dem ñu recalé wate ñenn ñi ba mu des 37 tey jii ñu teew ni fanweer ak juróom-ñaari carte lañ édité ñenn yenn yi ministre bi joxe na ko. depuis ñetti weer 166 ñoom ñoo déposé donc jàpp naa ni euh, rythme bi yéex na mais li koy waral nag mooy xaj na journaliste yi dañ jàpp. jarul ñuy précipité wu xamuñu ni bés dina ñëw dinañ wax ni à de telle képp ku nga xamante ne yorloo carte nationale de presse mënoo def sa liggéey de journal et technicien de la communication surtout l'étendue du territoire national il faut que ñoom seen bopp ñu ñëw rapproché wu de la commission déposé euh, pour que ñu jox leen seen carte nationale de presse avant que exigibilité boobu di am. ayca ñu jàll si euh, ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. Pape Manta Mbow daal toog ma nag asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Ndiaye. naka yi tey si teex dugaar. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu àddu jëm la si jongante xaritoo bi dox si diggante Sénégal Cap Vert tey jii si ngoon 19h. waaw tey jii si ngoon kon 19h si la nag Sénégal fas yéene daale ak équipe bii di Cap Vert foofu ci stade Lat Dior bu Thiès gannaaw nag ndam lu yaay yi nga xam ne Sénégal amoon na ko ci digganteem ak Zambie niki ci samedi bi ñett ci benn mu nekk nag victoire boo xam ne kii di Aliou rafetlu na ko loolu moom mi la sax dàqul nag tegaat même équipe bi mu tegoon ndaxte gis na ni équipe nag lépp lu mu ci soxla woon am na ko ñu teewlu ay kàddoom. waaw kontaan naa trop ci ci match bu ñu def contre Zambie surtout première période bi euh, consigne leen jox yëpp respecté nañ ko euh, première période première mi bi vraiment première mi de de qualité la woon. deuxième mi bi nag c'est vrai que amoon nañu benn trou boo xam ne à partir de la quinze début du bi ça a été un petit peu compliqué euh, donc c'était important que ma encore sama joueur yi pour pour jox leen énergie boobu nga xam ne moom soxla nañ ko. waaw bu dee mën nañu continuer ak onze boobu dinañu dinañu xool bu leen fàtte ni que samedi lañ joué parfois xale yi dañuy xaw a match de fin de saison la. Euh, wala tamit changé équipe bi loolu dafa dafa normal mais pour l'instant daal gisaguñu kenn kenn ñëw plaindre ci ci fatigue wala wala blessure kon man nañ am yaakaar ni que xëy na onze bu ñu defoon contre Zambie mën na demaat mais loolu tey nañ koy xam tey ci guddi ñoo desandi ba tey ak Aliou Cissé mi nga xam liggéey bi nag ci équipe nationale bi day wéy ndaxte gis na ne daal lu jëm nag ci wàllum bal arrêté yi Sénégal nag am na ci ay jafe-jafe soo xoolee sax seen diggante ak Zambie bal bu ñu nag encaissé bokk na ci lu ko waral ba tax na daal liggéey bi dinañ ko nag gën a accès foofu ñu teewlu ba tey kii di Aliou Cissé mi tàggat gaynde ak Sénégal yi. Euh, ay détails yoo xam ne la ba def ñuy def ñuy sonal topp war nañ ko régler voilà foog naa loolu détails yu concentration concentration la surtout ak communication entre góol bi ak défenseurs yi mais sànq balaa nga ñëw entraînement sax xaw naa si waxtaan ak ñoom ci loolu ñu ngi koy xool c'est vrai que suñu coup de pied yi yëpp pratiquement ñun zone la ñuy joué ci coup yi euh, keroog maa ngi doon waxtaan ak euh, Koulibaly ak sama adjoint bi ne xëy na est-ce que duñu duñu changer bi bi Euh, après man lu ma gëm mooy marquage individuel. parce que man loolu laa gëm man personnellement mais néewuma ci garab bi je crois ñoom ñoo nekk ñoom xale yi ñoom joueurs yi euh, sensation bu ñu am ak ñoom luñ ko yëgee tamit loolu c'est important tamit ñu ciy waxtaan ak ñoom pour que ñu mën a dem noonu pour que équipe bi nekk ci équilibre bu baax tamit. président euh, président fédération sénégalaise bu football mu ngay dalal xel yi jëm ci pelouse bu stade bu Thiès. waaw bu stade bu Thiès euh, ba tax na nag xam nga gannaaw ba ñu jógee ci boobule jogante amoon na nag ay wax yi ci yëkkati ku ci mel ni Sadio Mané moom rafetluwul benn yoon euh, pelouse bi nga xam ne moom la ñuy foofu ci stade Lat bu Thiès en tout cas lu ci mënti am daal kii di maître Augustin Senghor moo ngi xam ne daal li ni mel nag ñu ngi ci indi ay jubbanti ngir nag pelouse boobu noonu mën nga gii di CAF teg na ko ba tax ne moom mi la daal ci nag indi ay yeneen coppite ñu ànd ci ak Sadio bi Ka ni ki noonu Madani Marega ci ndorteel gi buggul woon addu lu jëm ci pelouse bu stade Lat Dior de mujjanteel ga nag mu daal di xam ne ak liggéey bañ fay def fan yii terrain bi am na ab avancement te fii léegi weeru septembre problème bii dootuñ ci waxati. pelouse bi si boppam mëtagul ni mu war a mëtee mais am na soppite mu ngi tane mais loolu doyul ay jafe-jafe toilettes yeeg vestiaires yeeg euh, sièges yeeg yëpp lépp léeg-léeg na. mu di ay kàddu yu Kalidou Koulibaly di dëggal moom mi jotoon na joué ci pelouse bi samedi bi ñu génn. j'espère c'est ça le plus important, c'est qu'on arrive à avoir un terrain décent pour euh, di am yaakaar lu jëm ci wàllum homologation stade Lat Dior de Thiès. def nañ si liggéey bu tard boo xam ne may nañu tey ba kaf amaat beneen xoolin ci wàllu euh, maanaam li nga xam ne mooy euh, stade bi ba d'accord nañu pour yónnee ñu inspecteur ci ay ba yi di ñëw bu ñëwee am nañu yaakaar si suñuy waxtaan ak ñoom ak rapport bi ñu leen envoyé ak ñoom li ñu gis. que dinañu euh, maanaam euh, joxe homologation bi. ginnaaw ba mu amee ndam ci kanamu Zambie équipe nationale bu Sénégal dina jéem a defaat li ni mel ci kanamu Cap Vert mardi bi. ku def lu rëy am lu rëy sunu gaynde yi nga xam ne ñoo jël ndam li ci jongante réew Afrique yi ci footballu tefes yi mu mel ni kon njiitu réew président Macky Sall dara jaal na leen waaw dara jaal na leen nag démb gannaaw ba mu leen tabbee grade de chevalier dans l'ordre national gaynde Sénégal nag ak staff bi ku nekk jox na la nag fukki ci euh, million ci xaalisum réew mi lépp rek ngir nag euh, sargal leen ci nag juróom-benn titre bi nga xam ne Sénégal jël na ko tamit euh, ci coupe du monde bu ñu fas yéene amal foofu ca réewum Russie ni ki démb la amoon ci teewaayu kii di ministre bu njënk wàllum tàggat yaram di Matar Ba ak maître Augustin Senghor ni ki noonu ay membre ci fédéraux yi moom mi la nag muy Macky Sall di ñaax euh, gaynde yi nag ñu am taxawaay gu mucc ayib ca coupe du monde bu ñu fas yéene dem ci Russie euh, ci weerum août ñu ànd ci ak Soxna Fall ni noonu Babacar Mar. ñu jox la benn ordination waaye ñu jox itam benn enveloppe boo xam ne mu ngi toll ci fukki million pour joueur bu nekk ak membre bu nekk. ñu rafetlu neexal bi lool waaye itam bëgg amal coupe du monde bu gën a mucc ayib. tey vraiment joueur yëpp kontaan trop le fait président recevoir ñu quoi. lii daf lay gën a pour les prochaines échéances nga nga gën a nga coupe du monde incha tamit loolu la ñun tamit gën xool na la ñuy def ba bégal askan Sénégal bi. tey jii président recevoir nañu mais non seulement que dix millions yi mu leen may mais li si ëpp solo mooy ordre supérieur bi mu leen jox. juróom-benneelu trophée loolee di firndeel ñu sëmb seen dënd ci Afrique moo tax président de la fédération maître Augustin Senghor ñaax Aliou Cissé ki ñoo ñam ñu jël exemple ci Lion de beach soccer yi. ñoom manqué wuñu talent manqué wuñu euh, maanaam euh, xarañ pour mën a gagné coupe bi. de yàlla moo defoon loolu mu antu mais xëj na ni ñu jegee tey euh, ñi nga xam ne mooy Lion Beach Soccer xëj na dina leen xiir pour que ñoom bu ñu demee yàlla may leen ndam li parce que mooy suñu yéene. président de la république Macky Sall mi ngi xaar participation bu gën a mucc ayib ci coupe du monde bi nga xam ne dem nañ fa nekk fa quatre fois quart de finaliste. soxna Fall di ko jaajëfal bu baax a baax Mame Mbaye di jaajëfal tamit euh, lu jëm ci wàllum staff technique nag bu Beach Soccer di Ngalla Sylla yëpp ñoo ngi liggéey. liggéey bu am solo ci British Soccer euh, six fois champion d'Afrique en tout cas yombul moom ci sànq si récit mu ko doon wax nee nañu euh, dix millions yi néew na de ah en nit nag du joxe nga koy xeebal <laughs> waaye dix millions bu si tegoon benn kërit dana ca baax si logement sociaux ah, en tout cas mérité moom parce que franchement parlé liggéey bu ñu def Sénégal mi ngi ciy doog am ñu tegale six fois nu ñu koy waxee consécutif mooy tegale ah. ñu du ko am donc wax dëgg yàlla dafa am solo ñu jox leen ndàmpaay yoo xam ne day tax ñeneen ñu mënti doon ci discipline bu mu mënti doon nga mën a góorlu pour porter haut le drapeau sénégalais mm-hmm. te loolu day am solo parce que motivation mook sport ñoo ànd te képp kuy def sport waruñu def euh, xaj ak seen ci kii kat discipline bi la nekk wala bële autant ni ñuy sargalee ak a jàppalee les lions de football équipe A bi noonu ñu leen di jox mettre leen ci condition yu war autant noonu lañ ko war a defee pour ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci discipline bu mu mënti doon te ñuy porter le drapo sénégalais loolu je crois c'est important il faudrait que ñu liggéey ci jëm ci loolu parce que dina tax ñu mën a jëm pour mën a am yenn sacre continental le le député du peuple. point bu am solo ah. Mm-hmm. sunu gaynde ah sunu gars daal jàmbaar la ñu ñoom wax dëgg yàlla mais nag. def nañ leen war euh, <laughs> faaw ñu gën leen a yokk motivation yi quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire que koom gi nekk ci réew mi dañ koy dañ ciy def sport parce que sport day joxe koom. sport mm-hmm. loo ko lebal daf la koy delloo. mais foog nga gëm ko ci wàllu infrastructure ci wàllu joxe gi. Euh, te bàyyi ko lu synthétique. Euh, ñu bàyyi synthétique bi. <laughs> non élargi élargi non dafa xewi synthétique dafa xewi te mënoo bëgg a bëgg egg fenn ci wàllu football. <laughs> Eh. toujours ngay prôné ay gazon synthétique. Euh, xam nga xam nga xam nga bu président fédération sénégalaise de di wax ni. dégg na jàmbatu Sadio Mané ci wàllu mm. gazon bu bon bi ak terrain bu bon bi. mais yiin wax leen ma lan moo baax ci stade euh, Lat Dior bu Thiès. <laughs> wax leen ma lan stade Lat bu Thiès man quatre-vingt-quinze ba may jàng cees Al Azhar. Mm. doon dem sport di aw noonu foofu laa doon doge dem sport. boobu fekkoon stade bu màgget. ba léegi moo fa nekk. ba léegi moo quatre vingt quinze quatre vingt six fekk na mu fekk na ba léegi moo fa nekk. ay eh, li firndeel mooy premier mi-temps bi ak mi-temps bi lu fa xew. courant courant bu coupé. kenn mus ko kenn mus koo gis. incompétence dégager mais yoonu Sénégal nekku ci parce que infrastructure bu toll noonu. mënoo koo am te amoo groupe boo xam ni. mais yéen seen kër gi sax fi nekk nii fi ngeen di waxee ni ñu leen di seetaan mhm. bu bu courant bi coupé am na groupe bi déclenché suuf boo xamante ni ñiy seetaan ak ñiy déglu duñu xam ne am na rupture bu am et loolu moo mhm. normal mais Mansour compétition hmm? am Sénélec mënul jël matukaayam pour mettre hors délestage secteur boobu noonu. mais xanaa duñ ma ne Sénélec cuune na cuune goo xam ne. Mhm. véritablement journée. jour yi war nañ toog ay trente minutes trente cinq minutes bay lido ji di ko jël di ko. foofa di ko yónnee. foofa Sénélec. xoolal jéem leen de. benn yoon. Mhm. mais ñoom mënuñ sax jël seen ay motuwaay mais ci. installation yi ni ci stade bi sax mun naa màgget am taax moo bu màggetee day màggetaale ci orange ci biir rek fil yi ci biir rek ci biir léppay màggetaale hmm? léppay màgg ba sax mën naa su cosaanoo foofu. di fa màggataay on sait jamais nag. nekkul ni loolu laa confirmé. mais dama nekk fa màggataay. daan màgg dañ ko war a defaraat. Ndakaaru dafa am stade Demba Diop dañ ko a tabaxaat. Euh, Iba Mar dafa war a praticable. Mhm. Assane Diouf dañ ko war a bi. Léopold Sédar Senghor bi nga xam boo fa awee tàkkusaan boo dóoree bal ay njugub ñoo fay naaw ñu soppi ko. ci mën nañu ko. wallaahi mën nañu ko en tout cas beneen affaire bi daal érage comme ni ko Fofana waxee mhm. rek euh, nu ñuy tamit euh, yenn discipline yi bokk na si tamit ñu yaatal ko daal parce que tamit am na yenn discipline yoo xam ne euh, c'est des parents pauvres du mhm. bu ñu ñibbisee si réew mi kenn du xam ne sax ñoom demoon na champion d'Afrique te Sénégal am fa ndam